coalition bu nekk su jubloo loo xam ne mooy élection euh, day ay dañuy dañuy dajoo pour taxawal kuréel boo xam ne moom mooy yore campagne électorale tey jii nag loolu la ñu def woo waa APR woo parti yi nga xam ne ñoo àndal le président Macky Sall woo mouvement yi nga xam ne ñoo àndal pour ñu taxawal kuréel boo xam ne mën na jaytu man na doxal li xam ne mooy campagne yëpp. waaw gis nañu benn comité bu ñu monté démb ci gis. waaw dama ne comité euh, bu ñu tey. préciser que a à comité état bi monté démb waaw démb ça c'est le comité départemental bokk rek li ñu monté tey ça c'est le comité communal tey le comité départemental comme comme aussi c'est la même chose euh, y a Aymérou Gningue qui est a jugé ay mbiru ñing ñu xam ne mooy plénipotentiaire u parti bi ñu nommé ko ñu ñu nungu ko ñu ñëpp ñu nungu ko ne vraiment moom mooy président moom moo woote ne day day samp comité rural départemental ñu jàpp ni ki nga xam ne mooy le coordonnateur départemental du parti muy Abdou Ndéné Sarr ay nawleem yëpp dajee fal ko muy le coordonnateur départemental de de de de de Tivaouane de l'APR moom mu am compétence mu am taxawaayu woote pour monter le comité électoral parce que le président potentiel de bu ko jàppee mooy koo xam ni dafa war a yor relation bi ak administration bañ nañ ko ba dañ ko nommé préfet lañ ko adressé adressé wuñu ko keneen kon war na xam ne moom relation c'est avec l'administration mais la gestion des activités politiques c'est la coordination moo koy def yéen a ngi woote à l'unité kat waaw ñun moom parce que biñu ñu teel tey mooy fexe ba le président de la République le 24 février mu daje avec de 60 pour cent ci département Tivaouane donc loolu mooy suñu unité xeexuñu ñëwuñu kenn wala ko doole mais c'est loolu mooy on travaille ensemble on tend la main à tout Euh, c'est-à-dire, euh, vous savez que comme d'habitude, à la veille des élections présidentielles, euh, les militants et les partis de la coalition, hein, les membres de la coalition, d'une coalition qui, qui m'excuse, la répétition, mais se réunissent pour mettre sur place un comité électoral qui se trouve qu'aujourd'hui, nous avons convoqué les militants de la paire les partis qui sont avec nous et les mouvements qui sont avec nous pour monter le comité communal, mmh. nous avons appris qu'il y a le maire, le maire Jean euh, qui est le plénipotentiaire ou bien le mandataire du parti au niveau, au niveau de l'administration, qu'il aurait convoqué une réunion pour monter un comité électoral. Bon, nous, pensons que le rôle de, de, c'est lui à l'administration. n'est pas dans le parti. Le mandataire est en relation avec l'administration, il est chargé de déposer les listes, il est chargé de représenter le parti au niveau de l'administration. Mais quant à ce qui concerne les activités politiques, c'est le comité électoral qui s'en charge. Non, non, non, pas du tout, du tout. Du ce qui se fait ici, avec les, avec les, ce qui se fait avec les mouvements euh, euh, alliés, ce qui se fait euh, tout, tout, la coalition, C'est ce qui nous avons la CPGE, nous avons le euh, Cheikh qui est là, nous avons euh, l'ISL qui là. a, a de, il y a tous les mouvements sont là. Tous les partis qui sont avec le président Macky sont représentés ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce que vous préconisez attendons toujours la main et on jase aux autres. Hein, parce que nous, ce que nous cherchons, c'est de la victoire du président la République. Ce que nous cherchons, c'est le 24 que le président la République puisse gagner à plus de 60% dans la euh, nous sommes pas dans ce, cadre-là. Nous, nous appelons à l'unité. Nous appelons à l'unité. Vraiment, nous tendons la main à tout le monde. Pour qu'ensemble, on travaille pour la victoire du président la République.